الصوت الفاضي لفضلنا هدي القبائل بوكي سرين من بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nañu ñu ndokkeel suñu bopp di ndokkeel mbokki jullit تي yépp ci xéewal bi ñu yàlla di xeewali ngëm yàlla di xeewal boo xam ne daf ko génnee rek daf koo dendal ak ñim ko may ñu di ko jëfee mu jotaay nga xam ne jotaay sant yàlla rek la suñu woy dawe yu baax yi nañ ko defee woon yal ñu yàlla saxal ñu dëkk di ko defee noonu ci barke bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu imaam ak waa dëkk bi yëpp ñu ngi yëkkati ngërmande di ko jëmee ci waa Dakar jamiyatu ansaaru diin président di Baram Seck ak ñi ànd ak moom yëpp di ko jàppale ak waa Dakar ci teeru bi ñu ci teeru xam ne amuñ waaye yàlla mi nga xam ne am na lu nekk. mu ngi taxaw ci buntam. mu ngi taxaw ci buntam. di ñaan yàlla. di ñaan yàlla. yal na yàlla méngoo seen pay. yal na yàlla méngoo seen pay. yal na yàlla méngoo seen ndimbal. na yàlla leen. yal sant waa Dakar yëpp. di sant di leen jéggalu itam. di leen jéggalu xam ne keroog Dakar. indi fa ay bousculade yu bari ndax xam nañ ne Dakar. keroog indi nañ fa ay bousculade yu bëree bëri. waaye du luñ jublu. waaye du luñ jublu. noonu la demee rek. noonu la demee rek. manifesté wu. manifesté suñu bopp. wane wuñ bopp. dañoo dem rek suñu mbokk wane ñu ñu dañoo dem rek ngir suñu mbokk woo nañu mu demee noonu mu demee. mu demee noonu nag far mu demee ko. yàlla mi ko defee noonu. yàlla ko defee noonu. gërëm nañ defam. gërëm nañ ay jëfam nag. ñu ngi sant yàlla bu baax itam. ñu ngi sant yàlla bu baax itam. ñu ngi gërëm président Macky. ñu ngi gërëm. ndax dëgg yàlla ndax dëgg dëgg. ndax dëgg dëgg. nu nit di teralee ganam rek defal nañu ko. ci ci kër gañ dal. ci kër gañu dal. ak fam ñu euh, woo ci présidence. ak fam ñu woo ca ba. nekk ak ñun di kenn ci ñun. nekk ñun di kenn ci ñun. di ñu waxtaanal ay bëgg-bëggam ci Sénégal. ak ay géntam ci Sénégal. ak ay géntam ci Sénégal. te fekk loolu yëpp mooy suñu bëgg-bëgg mooy suñu gént. te fekk loolu yëpp méngoo suñu bëgg-bëgg ak suñuy gént. te mu ngi koy def ak dogu. te mu ngi koy def ak dogu. te mu koy def itam am yaakaar ne dana ko mën a def. te mu koy def itam am yaakaar ne dana ko mën a def. yal na ko ci yàlla dimbale. yal na ko ci yàlla dimbale. toog nag ñun waxtaan na ñu. sëriñ bi nag toog naag moom waxtaan ak ñun. toog naag ñun. toog ñun waxtaan ak ñun. reeloo nañu. reeloo nit ñi. reeloo nañu. reeloo nañu. wax waxal nañu lu nekk rek waroon ñu kenn laa ci yéen. wax nañ ñun tamit nangu nañ ne kenn la ci ñun. waaye xam nañ place bi mu ko teg bi ko yàlla teg. waaye xam nañ place bi ko yàlla teg. danañ màggal place boobu. danañ màggal place boobu. am na place am na ci suñu xol. am na place ci suñu xol. am nañ am am na ci ñun am na. ci ñun yëpp. am na ci ñun itam waxtu wu nekk ñu ngi koy ñaanal yàlla. am na ci ñun itam waxtu wu nekk ñu ngi koy ñaanal yàlla. yal na yàlla dëgëral ko. yal na yàlla dëgëral ko. yal na yàlla may ko loolu muy sàkku ci Sénégal te Sénégal yëpp bëgg ko. yal na yàlla may ko loolu muy sàkku ci Sénégal te Sénégal yëpp bëgg ko. bëgg loolu. bëgg loolu. yal na ko yàlla dëgëral. yàlla ko yàlla dëggalal. ñu ngi ñu ngi gërëm itam. ñu ngi gërëm itam. opposition bi. opposition bi. ñoom itamit dëgg-dëgg. ñoom itam dëgg-dëgg. lépp lu ñu mën rek ci teral seen gan. lépp lu ñu mën rek ci teral seen gan. def nañ ko. def nañ ko. ñu ngi leen di gërëm. ñu ngi leen di gërëm. kenn ku nekk ci turam. kenn ku nekk ci turam. kenn ku nekk ci jëmmam. kenn ku nekk ci jëmmam. di ko ñaanal yàlla. di ko ñaanal yàlla. yàlla nekk ci kanamam. yàlla yàlla nekk ci kanamam. yàlla na yàlla amee bëgg. yàlla yàlla amee li bëgg. yàlla yàlla moo amee li mu bëgg. yàlla moo amee li mu bëgg. yàlla na ko yàlla defal. yàlla na ko ko yàlla defal. ñu ngi ñaanal Sénégal yëpp. ñu ngi ñaanal Sénégal yëpp. yàlla nañu yàlla may jàmm. yàlla nañu yàlla may jàmm yaa rabbi. yàlla nañu yàlla may itam lu ñu téye jàmm jooju. yàlla nañu yàlla may itam lu ñu téye jàmm jooju yaa rabbi. jàmm jooju mooy ku nekk rek am loo am am am am am loo téye sa bopp. jàmm jooju mooy ne ku nekk rek am loo téye sa bopp. boo amee loo téye sa bopp nag. boo amee loo téye sa bopp nag. munoo ko munoo cee àgg mënoo cee àddu. lu dul liggéey rek. lu dul liggéey rek. yal na yàlla yombalal ñu liggéey. yal na yàlla yombalal ñu liggéey. may ñu jumtukaayu liggéey. may ñu jumtukaayu liggéey. bokk na ci samay gis-gis samay gént. sëriñ bi ne bokk na ci ay gis-gisam suy gént. ay géntam ay géntam bokk na ci samay gént. bokk na ci ay géntam. ne Sénégal amaguñ industrie bu mat sëkk. ne Sénégal amaguñ industrie bu mat sëkk. boo xam ne mën naa liggéeyloo lu ëpp ci nit ñi. boo xam ne mën naa liggéeyloo lu ëpp ci nit ñi. moo tax suuf si rek lañ am ak ak ndox mi. mu yaatu lool. mu yaatu lool nag. bon nag am nañu ay xale yu mat sëkk yu am doole. bon am nañ ay xale yu mat waxambaane yu am doole. macha allah yu bëree bëri itam. macha yoo xam ne buñ songee rek mën nañoo àggali. yoo ñu ngi oo woowaat xale yi di leen fe di leen dekkali. ñu ngi woowaat xale yi di leen feddali. di leen dekkali. di di leen dekkalal. ne. ne. liggéey rek moo leen di may li ñu bëgg. liggéey rek moo leen di may li bëgg. amaguñ liggéeyuwaay yu bëri. amaguñ liggéeyuwaay yu bëri. waaye am nañ suuf si am nañ ndox mi. waaye am nañ suuf si am nañ ndox mi. nañ ci jublu rek seet. nañ ci jublu rek seet. balaa yàgg yàlla dinañu woon loo xam ne. balaa yàgg yàlla dinañu may loo dinañu won loo xam ne. fooguñu woon mën nañ koo am. fooguñu woon ne lii mën nañ koo am. te mi ngi fi yàlla may nañu ko ba pare. te ci yàlla may nañu ko. mi mi ngi fi. mu ngi fi yàlla may nañu ko ba pare. dafay des ñu góorgóorlu pour génne ko. dafay des ñu góorgóorlu pour génne ko. loolu nag mu ngi dépendre ci population bi. loolu nag mu ngi dépendre ci ittey population bi. rawatina xale yi. rawatina xale yi. ñu tabax suñu réew. ñu tabax ko. ñu yëkkati suñu. ñu wan ne mën nañoo def dara pour suñu réew. ñu mën nañoo def dara pour réew. mën nañoo def dara pour suñu xeet. wane ne mën nañoo def dara pour suñu xeet. mën nañoo waajur. te mën nañ koo defee fii ci ci biir réew mi. te mën nañ koo defee fii ci biir réew mi. yal nañu yàlla dimbale. yal nañu yàlla dimbale. dëgëral ñu ci loolu. bañ mën a tabax. bañ mën a tabax. tabax boo xam ne ell na ak ñun. tabax boo xam ne ell na ak ñun. Euh, gërëm gërëm bu baax tem sëriñ bi ne mu ngi gërëm bu baax itam. sëriñ Dakar. sëriñ Dakar. dëgg-dëgg moom tamit taxawal na ak taxawaay bu jekk. dëgg-dëgg moom itam taxawu taxawaay na taxawu na ak ñun taxawaay bu jekk. ak mboolem kilifa Dakar yi. ak mboolem kilifa Dakar yi. góor ñi ak jigéen ñi. góor ñi ak jigéen ñi. ñu leen di ñaanal yàlla. ñu leen di ñaanal yàlla. seen taxawaay rafet yooyu. seen taxawaay rafet yooyu. yal yàlla rafetal jëm ci ñoom. yal yàlla rafetal seen i jikko. rafetal seen i jikko rafetal seen baax rafetal seen baax baax nañ waaye na ko yàlla gën a rafetal baax nañ waaye yàlla na ko yàlla gën a rafetal ba mu gën a mat ba mu gën a mat li nga xam ne moo moo tax ñu tànn def mbaax li nga xam ne moo tax ñu tànn def mbaax kuy tànn dara kuy tànn dara da nga koy tànn pour dara da nga koy tànn pour dara tànn nañ lislaam ñun tànn nañ lislaam ñun ngir nekk ay jullit ngir nekk ay jullit ngir jullit mooy lan ngir julit mooy lan mooy ki ñu yonentu wax ne mooy ki ñu yonentu wax ne du lor du jullitam ci làmmeñam ak ci loxoom. du lor moromu jullitam ci làmmeñam ak ci loxoom. du lor itam benn doomu aadama. du lor itam benn doomu aadama. ci turu man jullit laa yow éefar nga. loolu kenn du ci lor kenn. loolu kenn du ci lor kenn. waaye lii lorante kay. waaye lii lorante kay. mooy bakkani doomu aadama. mooy bakkani doomu aadama. gis ne moo eyoo lii. gis ne moo eyoo lii. te kenn eyoowu dara. te kenn eyoowu dara. ku yàlla may rekk la. yàlla nag ay mayam. yàlla nag fu ko neex la koy sotti. fu ko neex la koy sotti. seetut yaay diw seetut yaay diw. seetut kii mooy diw. man maa am rek may man yàlla. man maa am rek man may man yàlla. yal nañu yàlla may ñu nangoo noonu bu baax a baax. yal nañu ñu bu baax a baax. yal nañu yàlla dolli. yal nañu yàlla dolli. te bañ wàññi. te bañ wàññi yaa rabbi. yal nañu yàlla yëkkati. yal nañu yàlla yëkkati. te bañ daane. te bañ ñoo suufeel yaa rabbi yal nañu yàlla xamal yal nañu yàlla xamal te bañ ñoo réeral te bañ ñoo réeral yaa rabbi ci yal yàlla dëgëral ci gëm yàlla yal yàlla dëgëral ci te nangul yàlla te nangul yàlla te bëgg lu baax te bëgg lu baax bëgg lu baax nag bëgg lu baax nag il faut nga xam lan mooy lu baax il faut yow jaam bi nga xam lan mooy lu baax ndax lu baax yé lu baax lépp lépp lépp ndax lu baax lépp lépp lépp lépp ci yonent rek la bàyyi ko ci yonent rek la bàyyi ko sallallahu alayhi ak ñi uutu yonent gannaawam ak ñi uutu yonent ci gannaawam am nañ ay kilifa yu baax yoo xam ne baax rek lañ xam am nañ ay kilifa yu baax yoo xam ne baax rek lañ xam baax rek lañ jàngale baax rek tamit lañ jàngale baax rek lañ tasaare baax rek lañ tasaare ñooñu ñooy suñuy ay jumu ñooy suñuy jumuwaay ñooñu ñooy suñuy jumuwaay seetuñ keneen seetuñ keneen seetuñ keneen xooluñ rek lañ gis. ñoom rek lañ gis. te boo leen gisee nit ku gëm yàlla. di gis nit ku bëgg alxuraan. gis nit ku bëgg def lu baax. gis nit ku bëgg def lu baax. gis nit ku bëgg yar xeetam. di gis nit kuy sonn ngir xeetam dooleeku. di gis nit kuy sonn ngir xeetam dooleeku. ci mboolem dooleeku waaye. ci mboolem dolleeku waay. xam-xam. xam-xam. alal. alal. jikko yu rafet. jikko yu rafet. kawe sa kawe. kawe. loolu rek mooy seen jàngale. loolu rek mooy seen jàngale. moom lañ fi bàyyi. moo leen fi bàyyi moo moom lañ fi bàyyi. moom lañ fi bàyyi. yal nañu yàlla dimbale ñu langaamu ci. yal nañu yàlla dimbale ñu langaamu ci daay man. taxawal ko bu baax a baax. taxawal ko bu baax a baax. gërëm bu baax a baax encore waa Dakar. sëriñ bi ne mu ngi gërëm bu baax beneen yoon waa Dakar. ci seen taxawaay yu jekk yi nga xam ne. ci seen taxawaay yu jekk yi nga xam ne. taxawoo nañ ko taxawoo nañ ko waa Kaolack. taxawee nañ ko waa Kaolack. ci seen fan yooyu ñu fa am. ci fan yooyu ñu fa am nga fan yoo xam ne fan yu gën a neex. fan yoo xam ne fan yu gën a neex la. kenn mënu koo méngaleeg dara. kenn mënu koo méngaleeg dara. yàlla ñu dajale. yàlla ñu dajale. ci moom lañ nekk. ci moom lañ nekk. ci moom lañ tasaaroo itam. ci moom lañ tasaaroo itam. yal nañu ko yàlla saxalal. yal nañu ko yàlla saxalal. jazakumullahu xayran. jazakumullahu xayran. salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf. jërëjëf mu ngi noonu kaddu yi xalifa constitution constitution